asalaamaaleykum mbokk internautes yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di wax képp kuy gan eh, ci chaîne bi ñoo ngi lay ñaan nga abonné te bës cloche bi ndax eh, vidéo bu ñu dugal rek eh, nga bokk ca ñu koy njëkk gis di liker et leen di commenter également te di partager vidéo yi c'est très important mbokk yi ñu ñëw ci actualité bi actualité bi nag dinañu wax ci capitaine Kalidou Koulibaly ak ki nga xamante ne mooy Lamine Camara le jour de génération foot mais tout d'abord ñu commencé ko ak ki nga xamante ne mooy di sant bi tey ji commencé nañ ko ci diggante Algérie ak Libye Algérie gagné ñi nga xamante ne ñooy waa Libye 1-0 les Fenech d'Algérie ñoom ñoo gagné sans briller mais ki nga xamante ne mooy Pape Thiaw mooy kii tàggat gaynde euh, local yi donc moom nag euh, nee na suba match bu métti moom moom moo leen di xaar ci diggante ñoom ak euh, Côte d'Ivoire donc ñu fas yéene nag jóg. nek ci suñ gannaaw gaynde donc euh, bu 19h jotee suba ci ngoon donc diganté Sénégal ak ki nga xamante moy euh, mooy euh, Côte d'Ivoire mu nek li nga xamante moy mooy suñ premier match ci CHAN bi ki nga xamante moy capitaine Koulibaly néna len dinañ wax ci mom parce que mom tay néna nañ Télégraphe nee na Blues de Chelsea pare nañ ngir jaay ko li ko waral nak moy Chelsea jamono ñi ngi ci situation bu délicate nee situation bu metti bi ñu nek ni jamono yi donc fekkee jéem génnuñu ci situation bi dañ pare nañ ngir jaay euh, ki nga xamante moy mooy euh, Koulibaly ngir éviter perte parce que euh, ci ki nga xamante ñi nga xamante ne li ñu jënd dafa bari dépensé nañ plus de 200 millions d'euros ci mercato bi surtout ci défense bi Zeli ak ki nga xamante moy Fofana donc lool non nak mo waral ne buñ bu ci buñ jënu ci situation bi pare nañ ngir jaay. Kalidou Koulibaly mais également ki nga xamantene moy Lamine Camara le jour de génération foot mu nek un jour excellent donc un jour très talentueux bo xamantene euh, amna avenir mom nak euh, nee na ñu euh, bu CHAN bi jeexee day dem feulé ci FC Metz FC Metz bi nga xamantene dafa am ak partenariat ak ki nga xamantene moy génération foot en tout cas ñi koy souhaiter bon sens donc ci nouvelle aventure bobu non ñi nga xamantene ñoy wa waa Naples ñoom tey humilier la. Juve mu waa Juventus de train donc cinq buts à un lañ leen euh, duma donc ki nga xamantene moy l'attaquant nigérien Victor Osimhen il était en feu aujourd'hui donc daal di dugal euh, def dougal ñaari bi donc mom euh, l'international nigérien mom mi di Victor Osimhen donc mu permettre ki nga xamantene moy wa waa Naples ñu gagné cinq buts ja 1 donc mu nek lu am solo lo xamantene tay ji jii permettre na Naples ñu nok nek comme leaderu Serie A donc mbokk li mo nekkoon information yi nga xamante ne ñoom lañ leen bëggoon a jox di leen wax wéy leen di liker wéy leen di commenter ca ngeen jëf.